إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله bokk jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom bi ab jaamam war a sax di ko sant wéetal yàlla bañ koo bokkaaleeg dara ca gëm yonenti yàlla muhammad na may jaamu yàlla ba di yonenti yàlla ba mu yónni woon ngir mu war ñoo jaar jàngal ana naka la ñuy jaamoo suñu boroom subhanahu wa taala ngal la way mbokk jullit xam leen ne ñi ngi nekk nii du dund ak dund dund goo xam ne nii wallahi li muy gudd ci yow lu gàtt la lool ñeel boroom xel bis boo xamee ne nii jóge ngi fi da ngay xool na lu gàttoon la lool waaye mbokk dunduk àdduna googee la nga xamee ne nii noonu lay gàtt-gàtt xamal ne lu diis la lool ndax kat ndaw la boo xam ne nii dañ koo yóbbante la nga xamee ne mooy ay bisam ak i waxam ña ngi ko yóbbante suñuy jëf la ca baax ak la ca bon jëf yaa nga ca téere ya ñu bind la nga xam ne mooy pay yaa nga ca balance yi diñuy xaar képp ci ñun ca xellu war di bàyyi xel temps bii nga xam ne moom lay dund muy jaar ci moom ak foo ko mën a dunde nga xalaat keroog ba ngay jot la nga xam ne mooy résultat la nga ci jëfoon suñu borom yàlla subhanahu wa taala loolu la ñuy wax jaam bi nga xamee ne nii dafa sàggan du xalaat ëllëg xanaa nuur rekk riir jëm ci àdduna àdduna ji nga xam ne suñuy maame ki maam ñoo fi jiitu woon buur ya nekk ca ak généraux ya borom alal ya ak borom xam-xam ya amul kenn koo xamee ne nii matal nga ci sa aajo loolee mbokk ngeen bàyyi ci xel bu baax bokk na benn xikma boo xamee ne nii jullit da koy jële fu nekk kenn ci buur yi fi jaaroon doonte ne du woon ab jullit waaye dajale woon na la nga xam ne mooy li gën a kawe ci daraja di président Côte d'Ivoire di Houphouët-Boigny ca it yàlla dogaloon mu bokkoon ci famille milliardaire avant muy nekk président mu boole nekk milliardaire ak président moo ñu daan wax ne àdduna day mi ngi nii benn course la boo xam ni ah lay résultat ba ma nga ca fin ba xam ngeen ne course bala ñoo xam ki raw dañuy dem ca fa ñuy war a fin mu ne nag xam leen ni amul kenn ku yegg ca fin ba mbokk li mooy àdduna loo ci jéem-jéem da nga koy bàyyi kon yow mii borom xel xoolal noo koy jëfandikoo ngir am kërug texe ga nga xamee ne moom kër googee du ràpp ba faw mbokk ñi ngi nii di liggéey di dem lii ngeen toog ni ab liggéey la yal na yàlla nangul ñu ko su ngeen fa jógee yéen a ngi jëm ci beneen liggéey di dang-dangi di dang-dangi laqad xalaqna al insaana fii kabad amul kenn ku nekkul ci coono imma nga sonn ci ngërëmal yàlla wala nga sonn ci la nga xamee ne nii merum yàlla la ba baa ngay dékk yowmal qiyaama suñu borom yàlla arrangé ñu ñun ñëpp séddale ay jaamam ñaari parti benn parti boo xamee ne nii malaaka yi daañ ñëw tagg leen félicité leen jox leen seeni téere seen loxo ndeyjoor yal na yàlla boole ñu ca bu ko defee ku mel noonu dana wax ay yéen say mbokk ay yéen wëlëre yi xool leen sab téere ngi nii jël leen ngeen jàng lu waral loolu mooy lam defoon ca téere ba rusul ku ko jàng lam doon feeñal ak di ko nëbb bu wéeteeg yàlla tey di rusul ku ko jàng ndax résultat ba ca nekk iqra'u yéen ñépp jàng leen samay résultat man day dama jàppoon ni bis dana mës a ñëw yàlla xisaab ma inni zanantu anni mulaqin xisaabiya képp ci ñun war a bàyyi xel loolu may bàyyi xel ni bis dana ñëw sa borom xisaab la loolee borom bi subhanahu wa taala ne ku mel nii day ma nga ca dund gu tedd mooy aychatin radiya dund gu ñu gërëm ni ma la koy waxe sànq moo ci nekk wallahi mbokk julit adduna amul dund gu ñu gërëm wolof nee na koo ñee ñëwul boppam adduna li fi neex mooy loo amagul waaye boo demee ba yegg ca rek gis na du dara nga séentu leneen séentu leneen alhaakum takaasur hatta zurtumul maqabir dañuy nekk di ju yóotu di jëkkante ba baa ñun ñëpp ñu tabbi biir bàmmeel loolee kon aïchati radiya ma nga ñuy xaar ci aljanna borom bi subhanahu wa taala mu ne dana leen fa dugal la nga xam ne nii mooy meññeent yi leen wër la nga xam ne nii mooy seen ngërëmul boroom ñu nekk fa sax fe ba faw loolu mbokk mooy waa ndeyjoor amma ki fàtte woon daje bi mu war a dajeeg adduna alaxira topp adduna ji fàtte yowmul xisaab ku mel noonee malaaka yi dañ ko ñëw gëdd ko weñaar loxom ba yóbbu ko ca loxo ndey càmmoñ ba ca gannaawam daal di koy jox ab téeréem téere boobu ba ko xoolee moom ci boppam sax du bëgg a xam résultat waxumaa nag di ko wax keneen yaa laytani lam adri ma xisaabiya ay waaye ak noo xam moom bañ a xam résultat bi nga xam ne moomay xaar te mooy lan la gis ci téere ba mooy ay bakkaar yu ànd ak merum yàlla ak wàcc waay gum nar a wàcc biir sawara su ko defee ca lay nekk nag di rëccu ay waay man day alal jama doon dajale jëriñu ma dara la nga xam ne moom laa yoroon ci ay pouvoir ak ay lay yu ma daan naxaate tey jii jëriñu ma dara mi ngi noonu aka ne xool ba ma deema bañ a dékk suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ko mel nii dara du ko xaar lu dul sawara joo xam ne lam fay lekk mooy xisliin lay jóge ci dëtt ak rangooñ yey ak dem wanag yey jóge ci waa saware ne moom mbokk lii ñu leen nettali wallahi du cinéma wallahi du théâtre wallahi du maye suñu borom yàlla mi nga xam ne mooy rabbu samawati wal ard rabbu dunia wal axira ki xam lépp ne muy nar a demee ëllëg moo ñuy nettali lii léegi nag yow mi am xel ñi ngi nii ñaari mbooloo ñooy daje alaxira waa ndeyjoor ñooy jot seen téere ci ndeyjoor waa càmmooñ ñooy jot seen téere ci càmmooñ yow ci ban ngay bokk ana ci ban ngay bokk mbokk loolu tiitaloon na sahabatul kiram ba nga xamee ne lu bari ci ñoom ci ñu ñu mën a lim dañ daan wax ne man de yowmal qiyaama suñ ma taxawaloon diggante aljanna ak sawara léegi ci xamuguma fan lay dem bu doon te ne day lu ma ñaan yàlla mu def ko dama naan ko yàlla dellu ma ma nekk poussière mbokk lu waral loolu ndax mbir ma tiitlu na mbir ma ñàng na mooy ñun ñëpp ñoo ngi dem ana ëllëg ki si biir ca ban mbooloo ngay bokk looloo tax ba ku nekk ci ñun na góor góorlu dund àdduna gu gàtt gi nga xam ne léegi mu jeex ngal la waaye lépp loo ciy jëf xool ko loo ciy wax xool ko te xam ne lépp suñu borom yàlla nee na am yaxsabuuna anna laa nasma'u sirrahum wa najwaahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubuun suñu borom mu ne mbaadu nit ñi dañoo foog ne la ñuy biiral di ko wax ci kaw ak la ñuy nëbb ci suuf man yàlla xawuma ko aha kay sama yonent yi yaa ngi ànd ak ñoom lépp lu ñu def ñu koy enregistré mbokk yonent yooyu mooy kiraaman kaatibin nga xam ne bés bu nekk suñu borom yàlla dana la ca yónnee ñaar ca fajar dana la ca yónnee ñaar ca tàkkusaan la leen di itteel mooy lan lañ lay présenté yowmul xisaab lu leen itteel mooy bind la téere boobu nga xam ne moo leen xaar yowmul xisaab looloo tax ba nga la waaye nañ góorgóorlu yàlla dañoo indi ci kaw suuf ngiree ñu jaamu ko xam leen loolu yow employé bi ñu embauché ci benn place nga war faa def 6 heures de temps wala 8 heures de temps da nga fee ñëw pour benn mbir bu ñu déterminé dañ laa indi ci place bi pour nga liggéey indi wul ñu fi pour fo indi wul ñu fi pour nelaw ila axiri naka noonu suñu borom yàlla dañoo indi ci àdduna ngir ñu jaamu ko jaamu googu nag firiwul ne dañoo war a sax ci rukkoo ko sujjuut déedéet jaamu yàlla mooy lépp looy def ci àdduna nga xool fan la ngërëmal yàlla nekk ca liggéey ba ca sëy ba ca tukki ba ca jëflante ya lii mooy la nga xam ne mooy ak jaamu yàlla ay yéen mbokk jullit xam leen ne mbir mi bu doon te ne ñun dong la ak suñu boroom ah xëy na mbir mi dina gën a yomb waaye mbir mi yombiwul noonu de suñu borom yàlla dañoo booleeg noon bu màgg noon bu bëri ay pexe ba ñuy bind suñu maam aadama mi ngi toog muy seytaan seytaane boobee suñu borom nee na pexem guddi pexem bëccëg mooy fexe ba détourné la fàtte loola li taxul nga ñëw ci kaw suuf taaralal la lépp lu yàlla xaraamal diisal ci yow lépp lu yàlla farataal ku mel noonu nag mbokk julit bàyyil xel xeex ak sa bakkan bi waaye bàyyil xel seytaane boobee lépp loo xam ne dalay sagganloo ci jaamu yàlla mi ngi jóge ci taarulu seytaan lépp loo xam ne dalay yóbbu ci mooy yàlla mi ngi jóge ca la nga xamee ne ni mooy taaralu seytaan seytaane boobu nga xam ne heure boo dajeg moom yowm alqiyaama mu ne hey fala taluumuuni wa luumu anfusakum maa ana bi musrixikum wa maa antum bi musriqi bu leen ma yedd yedd leen seen bakkan dara nekkul foon illaa an daawtukum fastajabtumu li damaa woote woon rek ngeen wuy si loolee mbokk kon ku ne ci ñun war caa bàyyi xel waaye rawatina ñun ñuy dund axiru zaman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na sahabatul kiram ne leen jamono ngi ñëw sama gannaaw al fitna yoo xam ne nii baadiru bil amali fitanan ka qitain min alayli muslim yusbihu rajulu mumin wa yumsi kafira wa yumsi muminan wa yusbihu kafira yabiu diinahu bi ardin min addunya moytu leen jamono ngi ñëw sama gannaaw fitna dana tasaaroo lool da ngay gis ku xëy suba nekkub julit balaa ngoon a mu nekk yéeféer koo xam ne tey ci ngoon yi julit bu wér la balaa suba mu nekk yéeféer jaaye diineem lu néew ci àdduna e yéen mbokk julit xoolal doomu aadama yi tey politique bi lim leen jaral xool leen li nga xam ne mooy suñ lii ñuy élection yi ñuy jëm xool leen coow yi ngeen ci dégg fitna yi ngeen ci dégg nit ñi fàtte nañ seen diine jullit ya lënkaloo nañu ak yéeféer yañ bokkal parti jullit ya noonoo nañu ak mbokk jullit yañ bokkalul parti ku nekk di xëccu fexe ba falu jaral na la rey bakkan jaral na la dem ca njabar ya jaral na la joxe sa alal mbokk loolu ku koy def fàtte nga sa boroom loolu la ñuy wax ca waajee nga xam ne alal rek moo ko yitteel loolu la ñuy wax ca kay nga xam ne nii ay syndicat ko yitteel loolee mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lu néew ci àdduna la ñuy jaayee seen diini su ko defee yow julit góorgóorlu ci loolu àdduna wallahi bu doon tene ne boo defee benn mooy yàlla ñu jël mbooli mi trésor yi kaw suuf jox la ko wallahi jëru ko jaru ko léegi nga dem bàyyi ko fi kon la nga xamee ne nii mooy yow borom xel danaa dem ca politique d'accord danaa dem ci sport d'accord syndicat d'accord liggéey d'accord waaye bi charte lépp lu may def di ca teg sama tànk di ca yëkkati sama loxo di ca génne saw làmmiñ day fekk ne ngërëmal yàlla ma nga ca lépp loo xam ne ngërëmal yàlla nekku ca du ndey du bàyyi du chef de parti du gouvernement du kenn koo xam ne ni mën na ma caa yóbbu lii mbokk moo war a nekk yóbbalub julit ca ngeen bàyyi xel ne mbokk julit jaamu yàlla yit nekkul ay mébét jaamu yàlla nekkul ay wax jaamu yàlla suñu borom yàlla dane i'malu i'lam i'malu allazina amanu wa amilu salihat da ngeen di jëf góor-góorlu leen xam ne yàlla li li gën ci liñ koy jëfal mooy la nga xamee ni ne mooy farata yi góor-góorlu leen ci julli góor-góorlu leen ci ñaax ci seenu njaboot góor-góorlu leen di dem ci néegu yàlla yi néeg yooyee nga xam ne moom la yàlla am ci kaw suuf yàlla mi ñu nar a dajale ci këram nga ci àjjana wallahi ay këram ci kaw suuf mi ngi nii ci jàkka yi góor ak jigéen nañ ñëw ci jàkka ji toog di julli di màggal yàlla di def istixfaar di sabbal yàlla di jàngal quraan ay yéen mbokk jullit góor-góorlu leen la nga xamee ne nii mooy naafile guddi di leen ko def wallahi tëraay bu bu gudd gudd mi ngi ñuy xaar doomu aadama yi yonente beeki sahabaam tëdd nañ junni at ak ñeenti téeméer ci biir suuf am na tëraay bu guddi ba lay xaar loolee bokk na ci la koy wàccal lu la lu la koy woyafal boo tëddee sa lal balaa njëla jot nga rocceeku sacrifier quelques minutes bu dul da ngaa sacrifier ay heure it lum bon bon sacrifier quelques minutes ci say nelaw taxaw ci sa kanamu boroom julli ay rakka ñaan jéggalu ngal la waay mbokk jullit téere bi yàlla bi dellu leen ci jàng leen téere bi yàlla bi yàlla subhanahu wa taala lay bi nga xam ne indi na ko ci ñun ndekete doomu aadama kat mën naa bàyyi soxlaam yépp toog am lu mu tiim yàlla indi na ci ñun layu portable boo demee ca kër ga góor jigéen mag ak ndaw ku nekk am nga ay waxtu yooyu tiim sa portable loolu tiim leen ko téere bi yàlla bi képp ku ko mun te jàng solo sa dal dem jàngi ko ngal la waaye jàkka ji xam leen ne yéen jigéen ñi lundi mardi bu nekk lundi ak àjjuma bu nekk ñu ngi fii boo yàggee ñëw da nga bokk ci ñu jàng téere borom bi ñi nga xamee ne ni góor ñi ñi ngi koy jàngale fii ci kaw loolee itamit ku nekk ci ñu war caa bàyyi xel mbokk weeru koor benn yoon la ci at waaye góorgóorlu leen baril ay naafila li nga xam ne mooy altine naafila baax na alxames naafila ko koor baax na weer wu ne nga woor ca ñetti fan yonent bi aleyhi salaam ne da ngay mel ne kuy dëkk woor gannaaw loolu itamit góorgóorlu leen ci sorox amul lenn lu mën a gaawee musal doomu aadama bi ci merum yàlla lu ko mën a gaawee jox ngërëmal yàlla mooy mu def njekk ci jaami yàlla yi jël leen ci seen alal day leen sarax miskin yi day leen sarax fuqara yi seen jegañaale yi ñàkk day leen leen nemmeeku di leen jàpp di leen dimbali suñ borom mu ne hal jazaa'ul ihsaani ilal ihsaan amul kenn kuy yërëm jaami yàlla yi dimbali jaami yàlla yi bañ a lor jaami yàlla yi lu dul boo ñëwee yowmal qiyaama suñu borom yàlla subhaanahu wa taala da nga la boole ci ñim taral gannaaw loolu it bu leen fàtte ay ñaan day leen ñaan fa ngeen mën a toll ca ñaan yi bu mu nekk rek ñaani adduna yi kese ni ngeen di ñaane adduna day leen ko ñaane àllaaxira dee leen ñaan yàlla musal leen ci mbugalu bàmmeel musal leen ci mbugalu yowmul xisaab musal leen ci la nga xam ne mooy sawara musal ci musal seenu njaboot lii day mbokk juleen képp koo xam ne ni sax na ci dee fu mu ko mën a bette it dana ko bette fekk mi ngi ci ngërëmal yàlla amma ku sàggane lii moom perte na adduna perte na alaxira اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين